nekk et frère puis rekk la amul fenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ma bëgg bokki taalibe yi ñun ñëpp ñu jëfe ndigalal sëriñ bi lépp loo xamante ni ay masque la dañ ko war a takk nañ ko war a takkee mesure barrière yëpp ñu jël ko def ko nam ko waree ndigalal sëriñ bi la kon ku dugg ci jumaa ji lépp loo xamante ni nekk na ci ay gel wala mu nekk ci eau de javel wala mu nekk ci ay masque ñun ñëpp nañ bokk jëfe ndigalal sëriñ bi buñ jullee ba noppi it kenn ku ne dellu ci ay itteem ndax foofu la waxtu yu toll foofu la jamono toll kon loolu ñu ngi koy yëgal ba bépp jullit yëpp bokki taaliba yëpp di leen fàttali ni lépp loo xamante ni dafa jëm ci entretien bi lu ci waay man mu def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xarisun aleykum ak xër ci yéen rasulillahi ku xër la ci yéen moo taxoon yéefar yi nekkoon ci jamonoom bi muy soog a tàmbali woote bi fu ne mu jëm fa ak ñoom fu ñu dugg mu dugg fa fu ñu yéeg mu yéeg fa di leen kar di leen dogale di leen gaaral yonent bi ko yàlla yónnee ci moom looloo ko yóbbu ba Taïf looloo yóbbu ay saxaabaam ba Éthiopie ndax xer gu mu xer ci ñoom bëgg ñépp àndandoo gëm sunu borom subhaanahu wa taala ji metti na ba sunu boroom di ko ci massawu fa laalaka baaxiun nafsaka ala in lam yuminu bi hada alxadisi asafa yow de dem boo sàggantule da nga alak sa bopp ci ñii topp leen rek fu ñu jëm nga jëm fa ndax bëgg rek ñu gëm ah boo sàggantul nga rey sa bopp de waaye dara yàlla ko ko bindee xarisun aleykum moo ko ko seddeel mu topp leen rek dem na ba suñ borom ni ko fa laa tashab nafsuka aleyhim xasaraat ñii nag bu ci rey sa bopp nag sa njàq di nga ci seen ñàkk gëm gi di ci tiit ba far nar ci alak sa bopp waaye dara dafa xër ci ñëpp dem àjjana ëllëg dafa xër ci ñëpp jub sunu borom ni ko wala taxzan alayhim bu ci jàqati nag waaye dara xër la def ba dafa mujj suñu borom wax ak moom ne ko laallaka baaxiun nafsaka allaa yakunu muminin ñi nag seen ñàkk gëm gi dëgg dëgg nag di ci alay sa bopp nag te nag ne la wóor ni bul jaakaar ne mukk dama amul kàttanu ñoom ñépp tey ñu gëm ma in nasha nunazzil alayhim min as-samaa'i aaya fa dallat anaaquhum laha xaadi'i bu ma neexoon tey tey ma wàcce kéemtaan bu jóge asamaan ñu gis ko ñoom ñépp ñépp jatt seeni dox yuur seeni bopp yilim yilimi wut ma gëm bu ma neexoon ñépp sëgg wut si ma waaye nii laa ko bëgg fariqun fil janna wa fariqun fi sair ëllëg day am ñu dem sawara am ñu dem ajjana ñiy dem sawara fii lañ koy liggéeyee ñiy dem ajjana fii lañ koy liggéeyee moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? yaakaar yi dama leen a mënta tudd wala boog bu ma neexoon wàcce kéemtaan ñi gën dëgër bopp ci ñoom dinañu ñëw gëm anaaquhum seen kàngam yi ñéppay ñëw gëm waaye nii rek waaye sunu borom subhanahu wa taala bëggul kuy yii yuur sa dox jett sa bopp ñëw di ko wut si dafa bëgg ku joxe xolam ànd ak xolam ànd ak tànkam waaxu tànk yu dër wut si ko kooku la suñu borom soxla soxlawul ku ñuy njoñ di ko ko indil déedéet ku dikkal boppam ak xolam nga xam ni kon suñ borom xol yi la soxla ku jox sa borom sa xol kooku la yàlla bëgg daanaka rek ni ngeen koy defee la fajar ku ne xam ni tey la ajjuma waaje sa kër jàpp waaxu tànk yu dër wut si ndax lan wut si yàlla rekk yàlla rek la fi indi yàlla na leen ko yàlla fay yàlla na yàlla fay ngëm gi sunu boroom ni ko su ma neexoon walaw shaa rabbuka la amana man fil ard jamian su ma neexoon ñi nekk ci kaw suuf yépp gëm ba tey kon xër gi nga xër ci ñoom bàyyi ci xel nag ci ni man am naa sama dogal maay dogal def na ko ak waa bani israil wa is nataq nal jabal ba ma yëkkatee dojoo mu tiim leen ñoom ñëpp ñu xam ni doj ci seen kaw la jëm ñoom ñëpp dañoo daw déglu ji yonent yi yàlla Muusaa ci lim leen doon woo doj wa yàlla yëkkatiwaat doj ba mu ñu dellu ci lañ nekkoon noonu lañ leen xame ni bindee malaaka yi ba kenn du mooy yàlla li neex yàlla rek lañ def bu ko bindee woon nit ñi noonu kenn du mooy yàlla ñépp a koy gëm waaye la xaqat laqad xaqal xawul wax naa ba noppi te li ma wax am day am ñu dem fii am ñu dem fee yàlla yàlla dugal àjjana yàlla yàlla boole si ñuy dem àjjana noonu mu xëre woon ci ñi nga xam ne duggaguñu woon ci diine ji lu ne mu daj ko ngir ñu dugg ci diine ji noonu la xëre ci ñi dugg ba noppi ngir ñu des ci diine ji di ko sellal ngir ñu des ci ngëm gi di ko sellal li wala fii di wax jub te lanca yaa amanu aminu yéen ñi gëm ba noppi sellal leen ngëm gi des leen ci ngëm gi noonu la yonent bi xëre woon ci ñi dugg ba noppi ñëpp tege ci aw yoon di jaamu suñ boroom di ko sellal na ko suñ boroom subhaanahu wa taala bëgge jataay yi nga xam ni moom am na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yuy wane ak xërëm bari na lool boo ko toppee sax day waaye ñu tudd ci biir rek ndax xëy na dem ca baq ya mooy almaqbara ca barab ya nuyu leen ni ñuy nuyoo ña fa nekk assalaamu aleykum daara qawmin muminin boo fa duggee loolu nga leen di nuyoo maa ngi leen di nuyu yéen waa kër gi gëm yàlla daal di wëlbatiku ni saxaaba yi waditu anni xad raaytu ixwaanana ak a neexoon bëggoon na maa gis sama mbokk yi lool saxaaba yi ni ko ah, ñun du ñu say mbokk mu ne leen yéen samay saxaaba ngeen samay àndandoo ngeen yéen ma dar fii ci li may def samay mbokk mooy ñi nga xam ni ñooy ñëw sama ginnaaw ci samaw xeet te fekkuñu ma fi gisuñu ma dégg ma rekk gëm ma waaye maa ngi leen di xaar ca déeg ba alxawd déeg ba dex la gu nekk ajjana gu mag a mag a mag ñaari tiwa di ca bale wala misaab di sottiku ca mawxif ba fa ñuy taxaw ëllëg yowmal xiyaam di fa sottiku def fa ak dex wala mbalka mu mag a mag a mag nee na ma ñu fay xaar ku ñëw mu nandal la ca yal nañ yàlla nandal mu ni leen sama xeet yi saxaaba yi ñoo ko wax ni ko waaw ñii ñëw sa ginnaaw ci sa xeet wi te gisoo leen noo leen di xàmmee bu ëllëgee mu ne leen ndax ku ci amoon say fas yu xetti jébb mooy jëba weex tànk ya weex mu nekk ci biir ay fas yu wenn melo ñuul ndax boo gisee say fas doo ko xàmmee ñu ne ko axa kay mu ni ñii ñëw sama ginnaaw ci sama xeet wi bu ñu ñëwee yomal xiyaam seen xar kanam yi day leer seen loxo yi day leer seen tànk yi day leer ndax njàpp miñ doon jàpp fii ci àdduna ni leen maa ngi leen di xaar foofa ca dégg ba jal leen fa yàlla daje ak moom na nandal ñu ca dégg ba xeetu sayduna muhammad ak wi muy wax mën nga koo séddale ñaari xaaj am na lu ñuy wax ummatu daawa képp koo xam ni bay fi yonent bi ñëwee di woote ak léegi feeñ nga fi ak loo doon yahut nga masiix yi nga hindus nga ateen la loo mën a doon waaye ginnaaw yenent bi nga fi ñëw ci xeetu seydina muhammad nga bokk moom lañu wax ummatu daawa ñi mu war a woo ci wooteem bii ndax keneen dootu woote ak xaaj bi ñuy wax ummatul ijaaba wala istijaaba ñi nga xam ni ñoo ko ñëw wuy si dégg ay ndigalam di ko jëfee topp yàlla di jàng alxuraan di jëfe ñooñu la ñuy wax xeet wi ko wuy si ñoo ñooñu la jox rendez-vous wala dig daje foofa ca dex ka yal nañ ca bokk yal nañ ci yàlla boole boole yal nañ ci yàlla boole te dexam googee jar naa ñaan naan ca ndax lan bërëb ba fañ koy defee loola fa muy xewee bërëb ba daa yàgg xam siin alf sana juróom fukki junniy at taxawaay ba daay yàgg lépp ñu di ko taxaw tàngaay wa daa metti nit ñi dañoo bari foofay jafe-jafe fa ne kon ku ñu dig ni la foofa jox naa la fa dig daje lay tax ñu jox la fa digg daje war nga góor góorlu bu baax a baax nañ ko sonne bu baax dajeeg moom foofe bi ci topp ci xër ji mu am ci ñun mooy nee na yonent bu nekk am nga ñaan gu yàlla nangu ñépp nag jiital nañu seeni ñaan fii ci àdduna ku ne ñaan nga sa ñaan yàlla nangul la ko man ma denc sama ñaan ba yowmal xiyaam ngir ràmmoo ko sama xeet wii ma lay wax dandi képp koo xam ni faatu nga te bokkaale woo ak yàlla dara dara sama ñaan googu dana la jot dana la joti danaa la wàmmu ëllëg nga dégg ci taxawaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa ci xër gi mu am ci ñun xarisun aleykum bu ñu ko toppee bu sab waxtaan wi dana bil muminina raufur rahim ar rauf mi ngi jóge ci baat bu ñuy wax rafa ñeewante rahim mu ngi jóge ci baat bu ñuy wax rahma yërmande raufun ku bari ñeewante la rahimun ku bari yërmande la dafa mel ni ñaari baat yi benn la ku la ñeewante ku la yërëm kii dama koo ñeewante kii dama koo yërëm xaw nañoo nuroo jege lool waaye bu ñu doon benn dëgg dëgg doo borom bi du leen tegale fii kon lu ci am secret bu ci nekk mooy rauf ku la ñeewante mooy koo xam ni fépp fu mu gis lor yu jëm si ci yow mu fanqal la ko di la aar ci ay lor rahim mooy képp koo xam ni gis na njariñ mu xëccal la ko kon moom rasulullah fu mu gisee lor fanq ko fu mu gis yërmande xéewal xëccal lu ko moo tax suñu borom bi taggee ko raufun rahim cës laayal xam-xam la tamit moom la ñuy wax darul mafsada muqaddamun ala jalbil manfaa fekk ay lor mooy jiitu xëcc ay njëriñ buñ koy jàng misaal yi ñu ciy misaal yu bari lay doon xëy na benn rek ñaari mbir yu daje ci yow nit ku yor màngoom wala yu pomam di la ko sànni di la ko sànni ngay aw waaye am na ku xëy na xelam neexul mu seen ñu lay sànni mu fari doj di la sànni yëpp di ñëwandoo nooy def doo fexe aar sa bopp ci lor yi ba noppi soog a dellu di xëcc njëriñ yi raufur rahim noonu la ñu yonent bi defal daf nuy aar ba noppi di nu xëccal ay njëriñ suñu borom jiitu na ko ci fa man zuxziha anin naar wa udxilal jannata faqad faaz koo xam ni fexe naa góor góorlu nga ba ma dàndale la sabara gisoo ko fenn déggoo ko fenn rekk baax na waaye ñu dugal la ajjana nag texe nga faqad faaza texe nga bis boo duggee ajjana moom li ustaas bi wax ay jeex na texe nga wa nunazilu min alsama wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma alquran dama koy wàcce muy ñëw waaye lu ci nekk saafara la mën na leen a saafara ba noppi wala batiku di leen xëccal ay xéewal kon alquran dañuy saafara nit di xëcc ay nit ba tey raufun rahim ces laayal xam-xam la yonent bi sallallahu alayhi wa sunu boroom moo ko ko tagge nit ki nag su teewloo melokaan yi nga xam ne boroom bi moo ko limal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min anfusikum ci yéen la bokk azizun alayhi ku leen di fegale lor la wala azizun alayhi ku bëggul ngeen sonn fenn la teg ca xarisun aleykum ku xër lool ci yéen la ngeen jub ngeen tabbi àjjana ngeen texe raufur rahim ku ñe ku am ci yenn ñeewante la ku leen yërëm la yi yëpp bu dajee ci yow nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa nii la mel ci man kon nga war a jañu ci topp ko war a jañu ci bëgg ko lay puus sax ci nga bëgg ko wala nga topp ko doo ko tey waaye moo la war ndax mu dëppoog waxam nga njukkale ko ko danga ko war a bëgg topp ko njukkale ko ko mu dëppoog waxam ji muy wax ni man sanaa ilaykum maarufan fa kaafiuhu ku leen defal nje njekk na ngeen ko njukkal su ngeen ko munta njukkal ngeen ñaanal ko ba yëg ni njukkal ngeen ko yonent bi sallallahu kon ñu war a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa topp ko njukkale ko ko ndax li mu ñu defal bil mu'minin raufur rahim ñaari melokaan yi raufur rahim yàlla melal la ko yonent bi sallallahu alayhi wa jiitu na moom sunu borom subhanahu wa mu melal ci boppam innahu bihim raufur rahim moom yàlla ci boppam ci bokk na ci asma turam yi raufur rahim kon bokk na ci turi yàlla yi raufur rahim kon bi mu ko melalalee yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mel dañuy wax naan moom kat melokaanam yu taaru yi mën mi maa ko ko jox kon sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom mën a ko melal aaya yi des waaye yëg si ñu ci loo xam ne ni mën nañ caa taxaw xam yonent bi sallallahu alayhi ndax dañ ko doon wax ngir defale ko sunu bopp tamit ci waxtu yi ñu toll ànd ak moom bi ruuxi wal lisaani wal qalbi